je tiens à cœur ñuy jàngal nit nu muy nappee et non di ko jox ay t-shirt wala jën tous les jours l'emploi des jeunes tant qu'ils n'ont pas ce qu'ils la nga xam ne góor bu tollee ci diggu ndëndam liggéey mooy dignité conséquence baa ngi ni yéen koy gis avec euh, l'immigration gars yi naan irrégulière man si suicidaire géej amul bànqaas ils sont contraints et forcés di demee nii ba nga xam ne Sénégal yenn zone yi kenn toogatu fa kenn nekku fa mag ñi rek ñoo fa nekk foofu ci tefes la moo tax xëy ndaw yi c'est vraiment ci priorité yi laa ko teg parmi les mesures à prendre ci mbéy mi laa koy jëlee parce que nous avons des terres nous avons l'eau nappe phréatique nous avons tout les bras nous avons le soleil tout